ñi ngi amaan mbégte gannaaw bi ñu yàlla mayaatee ñu teewaat fii ci jumaa ju sell ji ci weeru teddu màgg wii ci bis yu mujj yi àndaat ak sunu kilifa Cheikh Ahmadou Bassir Mbacké moom suñu Xaadim Awa Ba mi nga xam ne dafa fasante kóllëre ak daayira Muxaddamatul Xidma bii nga xam ne ñoom la euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha dénkaat ñuy saytu ak xormay jumaay Tuubaa te seen kilifa nekk ni toog sëñ Afe sa mi nga xam ne mooy jëwriñ di ànd ak njaboot gi yëpp ñu fasante kóllëre Cheikh Mouhamed Bachir bi nga xam ne gisul lu dul liggéeyal Serigne Touba ak liggéey lislaam saa su ne daayira di ko seere ci taxawaayam ci biir jumaa ji du moom rek waaye li alxuraan di wax naa li misli hada fal yaamali aamiluun wa fi wa fi wa fi daalik fal yatanaafisul mutanaafisun saa su ne ci loolu lay nekk mooy comme xam ne Serigne Touba amul lu dul bëgg-bëgg jumaa ji dëkk bi rek la bëggoon ak jumaam ji te jumaa ji Serigne Touba ñaan yàlla yàlla euh, melal ko ko ca anam gën a mucc ayib te anam yoyu sa suné dañ koy soxla moo tax sax Basiru jël eh, tankam jël jotam jël léppam jox ko waa ma xaddama khid daay ma xaddama xid lépp loo xam ne soxla nañ ko ci juma ji mo xam ci walu matériel la mo xam ci walu moyen la ak lepp lu ma doon Cheikh Ahmadou basiru bu ko mënu ci loxoom dana fexé wuti ay gaay yalla ay jambar yo xamne dana ñew jappalé ko daayira ma xaddama xidma man nañu tuddu kenn ko xamne jambar la muy sëñ Abdoulaye Seniko mi nga xamne chaque année euh dana yëkëti sombu am solo jox ko Cheikh Amadou Bassir pour mu indil ko ko joxal ko jaami yàlla yi nga xam ne ñooy dogoo fii ci biir jumaa ji sànq si Abdoulaye Bousso wax na ko nee na daaw daana toll ci ay 4000 mais na ren àgg nañ ci 5000 kon loolu day wane yittewoo gu dëkk bi yittewoo lii nga xam moom la ñuy defal te yàlla tax muy ndogu yii nga xam ne yonent sallallahu alayhi doon wax ne dee leen fegu ci sawara donte xaritu tàndarma la te tey ku fi ñëw tey yaa nga gis liñ fi indi ci xeeti ndogu loo xam ne mucc na ayib ci loo xam ne moom la jamono tollool da nga gis ne lepp mat na ba mat sëkk loolu nag gàcce ngalaama daayira Muxaddamatul khidma bi nga xamne sen taxaway depp yu ñu jox leen jumaa ji ñëpp gis nañ xar kanam gi jumaa ji amaat ci walu xam-xam ci walu tar ci walu xorma ci walu lepp lu man doon gis ngeen faneri fani koor gi lepp ay borom xam-xam indi fi takusan ñu fi di waxtaane xam-xam waye indi ño xam dalak ay mufti lañ doon ñuy def ay fatwa lepp lo xam ne lët na ci diine ko laaj ñu tontu la ci lol nak Cheikh bassir neena euh, mi ngi ci sante waa daayira mu ma xidma bi nga xam ne ñoom ñoo taxawee lu mel noonu di leen wax ne lii nga xam ne boole nañ ko ci moom moo leen di sant dama ko waxoon at yu ne moom moo leen di sant ndax ku la woo ci lu baax dalaa bëgg dimbali ndax lii rek moo am solo lii rek mooy mujj doomu aadama ay jëfam lépp day dog gannaaw bi fi jógee lu dul jëf yu baax yi doon jëf moo tax ñoom nee na ngi leen sant bu baax ci yaatal gi ñu ko yaatal ak woo gi ñu ko woo def lu baax bu sant am moo leen di sant sant googu ne nee na mi ngi koy jël teg ko ci loxol ah, suñu affaire bu mi nga xam ne tayul ñëpp gis nañ ci ak baaxam ak lewetam gannaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala moom i nu mayoon nëga ni daaw ñu teew fi mu may nun teewaat fi nëga ni ren ñu ngi koy sant ñaan mu may nun teewaat fi dibén yu bëree bëri di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak mboolem kilifa yi diine yëpp di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gépp di sant bu baax a baax imam ci taxawaay bi nga xam ne taxaw ne ko ci jumaa ji ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndal muy Muxaddamatul Xidma ci liggéey bi nga xamné mom lañu liggéey l'islam ci diko jaar liggéey ci tolu Serigne Touba ci na ci wéru tedd wi nga xamné moy cheikh ramadan ñi ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm nii nga xamné non lañ ko baax def at mu ne bu ñu ci bis bi and ko Cheikh Mahamadou Basir mi nga xamné day wo bokk yi nga xamné ñom la bokkal Serigne Bara ak ñi nga la xam la ñom la bokkal Daaru Khoudoss muy wa Cheikh Mahamadou Moustapha ñu and ko ak imam ak daayira bi teew ci bis bi na ma ko daan defe rek noonu la ko daan defee kenn ku nekk xam ne ne lu jiitu bis bi itam woote woon na amoon na fi ndaje moo xam ne woote woon na ko am ndimbal yoo xam ne da ko doon dimbalee yi ak daara yi lii nag dafa bekk aada la joo xam ne nii waxtu ñu àggee ci bis bii rek dana dajale ay bokkam ak ay xaritam ñëw teew ci kanamu imam ak waa daayira bi yëpp indi li nga xam ne noonu la ko baaxoon a def muy li nga xam ne addee Serigne Touba la ak euh, def gi mu koy def defu ko jëmmi boppam da koo defal Cheikh Mouhamadul Moussa bi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadul Amin Daara ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Mouhamadul Amin Daara Mbacke ñëpp nag ca kenn jiituwu ca ki nga xam ne mooy Cheikh Saliou Mbacke di xalifaam di magam di kilifaam di léppam loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne waxoon nañ ne bu ñëwee danañ ko ci yëkkati rek di sant bu baax a baax imaam di sant daayira bi nga xam ne itam ñoom la àndal liggéey bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu yàggu koo taxawee lépp luñ ciy def it yàlla defal leen ci yiwu kawe seen jot wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. boo ko fekk lu baax lay def tey jii mu defati ko ci barab bi nga xam ne mel ni fi rek la la ware ñu yëkkati lu tolloog ñaari million bu ko jëbbal sëñ ak mosu ak li nga xam ne moom lay def ci ndogu yi loolu la da koy def boppam la koy defal waaye tim moo dem bokk yëpp la koy def ndax seen tubaab tax moo kon nag ñun dañuy sant rek dañu ko teewee di ko ñaanal yàlla mu gën ko man tam tam yàgg loolu di gërëm yi nag ci turu mbokk yi turu mboolem njaboot suñu Tuubaa gi ci lu baax li xam ni mu koy def di ko def feneen ndax nit bu fekkente ne bii yàlla da wax xiir ci liggéeyal maamam mu suñu Cheikh Mamadou Lamine Bara yàlla fal ko ci liggéeyal daara yi yàlla fal ko liggéeyal jumaa yi kooku mën naa ne kenn gënu ko kon sëñ bi yàlla na yàlla jàppale ko seet bu ci addi yaa la waaw ñu mën ko teewaay ak suñ cant ak suñ gërëm di wax na lii lu rëy ci nun la ndax ñun njaboot sëriñ bi lañ ñoo xam ne liggéey sëriñ bi rek moo nañu ñor kon buñ demee ba toll fii njaboot sëriñ gu toll ni gu toll ni gi fi teew tey teew fi loola mbégte doon ci nun xol bu set la doon ci nun ba man tey xawoon maa xaalu sax ba bi may julli sax xawoon maa tàggu sama xol ci biir boobu tuuti ndax rek xol bu xol ndax rek xol bu xol xol xol xol bu sedd ba tax na kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yow nag gannaaw bu ñu sant ñëpp ba noppi dañu wax ne dañ nga xam ne jàppal waaye am na yow tey bis boo xam tey da nga ñu war a feeñal suñu cant teew waaw suñu cant moom dafay sax ndax sa jëf dafay sax ndax ku geesu ci jumaa ji ñun ñi nga xam ñoo xam li fi dox gis sa jëf te képp ko xam man nga ko lonk andi ko mu jëf lonk ko mu andi jëf te yalla rek tax la mu jëf nak yag nañu ko seq doo nga ko xam loolu kon jëfi ngir yalla rek la jëfi ngir yalla ak sëriñ Tuubaa mi ngi ko seqal nga xam mo tax nga ko jëf tay nak day bis bo xam ne say bokk dafa dajé kon fokk ñu xëy cant gi waaye cant gi mom nga xam dañ cee sax mom cant gi ak ñaan gi ci sax ndax da nga japp ci liggéey bi lool ndax liggéey bi nun néew nañ ci doole te waxtu ci yamba gag rek bu sun xel demee ci bu ñëwé rek mu digëntu ko fa saasa ci anam bo xam ne ma sambu du yëg ma demu du yëg da ngay wax sax ne bu ko keneen yëg loolu nag nga xam ne seere nañ ko bu baax sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax nga ko gën a seere te moo am pay nga ñaanal suñ fay fay la yaa ngi àndal ñëpp suñ borom musal leen sàmm leen yéen a xam fa ngeen bëgg àgg su ma àggal fi ci àggin ba gën a rafet ak ñi nga ñëpp wax ko sëñ Tuubaa mu daal sant dafa mutué sant waaye koñ wax ne rek sant ngi sant ñëpp ngi bokk yi nga àndal ñëpp itam ndax xam na ne li nga seqal da nga seq ak bokk yi ndax lii ku ne xam ne ne jafe na ndax maanaam nit suñu borom mooy ko teraanga mu ànd ak bokkam lu jafe-jafe la waaw lu jafe-jafe la te xam naa yàlla te xam ne yàlla te xam yàlla may na la ko waaw may na la ko ndax lii moom xol xol mooy xol ju la nangul xol ju nangul nag mooy da nga leen nangul moo tax ñu xam nga sa xol nangul nga leen nangul sa teraanga taggalul ak say te lu bari nag bari na bari na mu koy defee lii nag mel def la aboor ak bopp loolu nag tawfiq la ndimul yàlla lay tam ndax àddina moom teraanga moom benn mu njëriñ rek maa mu lor léeg mu njëriñ léeg mu njëriñ léeg mu nurul njëriñ waaye daa lor ndax la mu yàq mu ëpp la mu lor lii nag ku ne xam ne ko li mu njëriñ mu ëpp li mu lor kon nag ñu ñaan daal kon ku bëgg a àggale yaa bokk ñu àndal yëpp mu àgg mu àgg fa waaye yaa ko xam kon ku bëgg na nga mu bëgg a àgg fa yàlla na fa àgg a rafet na ko bëggee waaye nag ñaan moom ñu ngi si ak sant ak ngërëm waaw wax ne daal lii moom day sant ñu feeñal ko waaye sax ci moom dafa sax ndax sa jëf dafa sax ci ñun moo tax ndax fu ñu toll fu ñu gëstu gis loo àndal lépp waaw ci turu daayira bépp ak turu suñu xam nga xam ne mooy kii fekk yoon lépp jërëjëf